وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دندون سقط عند سرسارا لهور Serigne Touba postulu dimba jërëjëf sëñ Bamba Serigne Touba ca Njaaréem jërëjëf sëñ Bamba Serigne Touba ca Jolof Serigne Touba ca Touba moo defar Cerno defar Masamba defar sëñ Mandumbe defar Seex Anta defar Seex Rafal boole koog nattu yi résidence surveillée ànd ak noonam Serigne Touba sept tonnes cinq cent ci Seydina Mouhamed jërëjëf Seexul ba benn waxtu tegalee fukki simili ci la cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général des Mourides egsee ci buntu daluwaayu université cheikh Ahmadou Khadim bu Touba xamale sëriñ bi ak barab bi daal dina tàmbali ci chantier bi nga xam ni moom mooy bibliothèque kër xasida yi te ñu jagleel ko mbind mi nga xam ni sëriñ Touba cheikh Ahmadou xadim daf ci doon kañ suñu borom ak di ci tagg yenent bi liggéey bi isbu tarxiya yor ko di ko doxal fii nag sëriñ bi fekk na équipe yi nekk ci coulage dal de compression premier étage bi nga xam ni moo nekk ci bâtiment bi lépp toll ci junni junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukki mètre carré ak juróom ba mu fa bàyyeekoo ci la dem ci dalluwaay bi nga xam ni moom lañ jagleel formation professionnelle di fi nga xam na bi nga xam ni junni ak juróomi téeméeri place la foofu nag fekk nañ fa équipe yi taxaw temm liggéey bi rawatina ci li nga xam ni moom mooy mujjantal gi ba mu fa bàyyeekoo nag ci lañ dem ci UFR bi nga xam ni moom lañ jagleel wàllum njàngum diine ak làkku arab UFR boobu le sax dinañ ko daloo ci ubbite digganteeg école gi ñu jëm fii nag Cheikh Mouhamadou Mountakha wàcc na ngir xool liggéey bi fan la toll ginnaaw gi nag ca la wane ak mbégteem ba ñu ko jébbalee caabi yi. sant sëñ Tuubaa rek. lii lépp lépp. tawfeexam la. dëgg la tawfeexam moo ni moo ni gindi. moo ni womat. dëgg la nii rek la demee. alhamdulilah lu ko jiitu nag xalif général des Mourides jaaroon na ci barab bi nga xam ni moom lañ jagle njàngum majalis ci biir université Cheikh Ahmadou Khadim bu Touba te Touba ca kanam di ko taxaw ndongo yi fa war a jàngee toll ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ci juma bi nekk ci université bi ci la Cheikh Mouhamadou Mountakha dal di jeexalee tànku nemmeeku yi fii nag moo fi jiite mbooloo mi jullik tisbaar ba mu génnee nag taalibe doon xaar ngir gërëm ko kañ ko ci liggéey ak taxawu bi nga xam ni mu ngi koy defal askan wi ñaanal nañ ko fi itamit mu am gudd fan ngir naa li mu sumb yëpp mu mën koo yeggale Serigne Touba postulu di ma jërëjëf suñu bopp suñu bopp Serigne Touba ca Njaaréem jërëjëf suñu bopp suñu bopp ca Jolof Serigne Touba ca Touba moo defar Cerno defar Masamba defar sëñ Mandumbe defar Cheikh Anta defar Cheikh Rafal boole koog nattu yi résidence surveillée ànd ak noonam Serigne Touba sept tonnes cinq cent ci Seydina Mouhamed jërëjëf Cheikhul Khadim jërëjëf suñu bopp suñu bopp jërëjëf suñu bopp suñu bopp jërëjëf suñu bopp suñu bopp jërëjëf suñu bopp suñu bopp jërëjëf suñu على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم حمد وشكر لمن كل بعسارا لهور دندون سقط عند سرسارا لهور